ayca ayca ayca ayca salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, tey nag ñu ngi ñëwaat seet si Pawlish pour waxtaanee ay question d'actualité Pawlish sama micro bi bu ko yàq respecté li ngay oh, li mooy suñu patrimoine quand même respecté nit ñi. xam <laughs> ah. bu lay yombee da koy jàppee. non non bu lay yombee yow lii da xamul valeur moo tax nga koy de ah, respecté ñu man nag ah. sérieusement damaa yomb moom ay micro nii daa yomb lool barki alxuraanu karim allez vas-y Pawlish baa li ngay def respect les ci loo nekk yaa ngi si jàmm. maa ngi soo yeewoo ni daal dem brunch ma kër bu la neexee def bër brunch sa kër brunch du ay hôtel dara brunch sax mun nga ko def sa kër maa ngi def brunch def xamaam def soin gisoo ni ma leeral de. moom sa réew yaa ngi ñuul ba tey. ñuulaay ci nit la. ñaaw teg si ñuul ñaaw teg si non man damaa naaj moom. non naaj soo de. Pawlish man damaa rafet dëgg la. sama waay nga mais naaj soo de. kala man il est il est ah. eh, <laughs> naka mu yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu baax naka activité yi. sant naa la Gallo yaa ngi koy laaj activité rek maa ngi sant yàlla Gallo. Ah. waaw laal ma li ma bëgg a laaj maa ngi sant yàlla. <coughs> li ñu koy tàmbalee mooy actualité euh, ak Guy Marius Sagna. Hmm. Guy Marius Sagna yëg nga ni takk na ñaareel. moom moom amoon na benn wax bi fi waxoon. suñu ah, suñu ko yëkkatal micro bi. amoon na am na wax amoon na benn wax bu mu waxoon ci ñun. waaw ne leen bu ñu demee ba Pawlish ak Ouzin. waaw ñun ñooy président yi yaa ngi koy fàttali ko. waaw suñu suñu am na benn émission bu waaw émission kii bi la woon. TFM mm-hmm. euh, la woon kii bi. ah boobu boobu boobu ñu ngi def ko confrontation ñoom ñu ngi def kii émission bii daw rek. jàkkaarloo ñoo jàkkaarlo kenn siraan la ñu lay siraan mu mu wax si ñun nag lu rafet. Mhm. léegi di wax ñoo wax ne dañ koy tontu lu rafet rek. <laughs> léegi léegi Mouhamed Sagna la tudd. tur bi ñu def Seydouna Mouhamed lañ ko tuddee. Mhm. Mouhamed Sagna lañ ko tuddee. Mhm. muy sunu papa Mouhamed Sagna député Mouhamed Sagna. wala nguuru Macky Sall bi dig na ko de. ah waaw waaw ci naka. Mohamed Mohamed mhm. <laughs> na jabar ju rafet. ci nguuru maki Sall la. waaw. ah. Mhm. dawal ci 4 bu seer a seer. 14 14 millions ci ci mhm. bi dafa gën a rafet. si nguuru Macky Sall nekk député nguuru nekk député ci nguuru Macky Sall la te Macky Macky intelligent. ci naka daa bàyyi ba coolu jug mu takkal ko jabar. barke <laughs> oh, alxuraanu ah, karim Macky du politique bi campagne moom bu nit ñi di campagne moom mi dem li ñu demee Mouhamed Sadia. <laughs> yow loolu nga ni Macky ko takkal. ba yow. foo teg loolu Macky dinante xam ne ni gu guri may Sadia kii Mouhamed Sadia rek ko nar a sonal moom rek ko mën na sonal parce que moom dafa këstoo te en plus dafa am fit xam ne moo rek a Macky jéem a xool nu mu dem ba takkal ko jabar mu dem yoonam Macky Macky xale bi ki Macky takk xaritam yaayam xaritu Macky Sall Juma Dieng Juma Dieng. Ah Macky dafa mën a politique. moo message naa ne du waxaat waxi politique. Ah, lu tax du ko wax. moom hmm. bàyyiwul de moom ba tey ma ngi ci terrain même bi muy labat xale bi ma ngi ci terrain bi. jigéen amul lépp léegi da rek ci terrain bi ci ci néeg yi lay ne jigéen. mun naa yokk koo ko doo comprendre ah. te mu takk jabar ju baax tamit. jigéen bu réglé rek dina am lu ne caat na te dafa réglé. Hmm. moom it moom moom jëkkër ju am ful la. jëkkër ju xam àddina jëkkër ju bëgg réewam Mouhamed Sagna muy suñu papa jooju yal na yàlla defal jàmm tey fii nga ñëw muy su bërëbu Seydunaa mu yal na la jig mhm. fépp a baax ay nit mooy def soo am yaa def sa soi yal na la sunu sunu sunu diine ji yal na la jig si darajaay Seydunaa Mouhamad mhm. man dama lay jàppee Mouhamed Sagna parce que noonu nga tudd léegi mhm. te te fii nga dugg mu bërëb bërëbu muy bërëbu yal na la sa lépp feeñu yal na la lépp oyof ci yow yal na yen bi oyof gën a oyof ci yow ci dara mais ma ci gën a ne parce que daa am hmm. man ma lan la man dama ko man man dama ko bëgg man ah. waaw man sérieusement nag dama ko billaahi wallaahi député yëpp moom laa ci gën a bëgg parce que daa am la loolu rek moo ma neex ci moom te en plus dafa bëgg réewam hmm. muy Mouhamed Sagna yal na la yàlla defal jàmm hmm. takk nga jabar fi nga ko war a takkee yàlla ngeen feete seen lune bu neex a neex li de mer bu neex a neex yàlla da ci sutura ngeen am jabar ju bàkkee nga tuddee ko Seyduna Muhammad loolu laa war a xam ci Mouhamed Sagna wasalaam kaa ñu avancé léegi li nga li nga xamante ni coïncidence la mooy bi muy tuub en même temps ci la taxaale jabar am ay débat yu suscité wu comme quoi que vraiment jabar ji moom moo tax mu daal di dugg ci diine l'islam et que aussi xam nga chrétien amul droit am ñaareel donc c'était benn alibi peut-être mu dugg ci ay wax la rek yoo xamante ne internet. chrétien amul droit am ñaari jabar. non non non. ñoom ñoom diine la. waaw. ah, ah, ah affaire affaire dafa dafa xaw a diis affaire diine dafa xaw a rëy. Mhm. ku nekk ak sa la. Mhm. ñoom bu dee ah, ñoo am choix boobu ñoom seen choix la. Mhm. bu dëgg. Mouhamed Sagna choix am la def kon dafa tuub pour mën a takk ñaari pour mën a takk ñaari jabar. ah loolu mooy xaw a niróol de. Ah, déedéet boo waxee xaw ma ndax lu tax tuubul bu yàgg avant xaw ma tax mu tuub parce que boo ma dugalee ci lii di wax fa laay génn danga may leeral parce que yow mi ma invité yow mi indil ma indil ma débat bi wax ma ci li ma xam ma tontu li ma xam lu leer naññ nga may wax ma tontu lu leer naññ. comme lu mel nan lu leer lu leer comme nan li tax mu tuub lan la. man ngay laaj lu tax mu tuub. ak yow mi indi ma information. kay ci loolu kay. yow laa bëgg a dimbali. information kay laa la jox. moo tax danga may leeral ma xam. non information bi ma la jox mooy. moom tuub na. waaw takk na ñaareel. waaw temps normal. chrétien warul warul warul am ñaareel.

religion affaire kii la religion la wax moom leen nañ ma tontu la. affaire religion la ok ah, léegi léegi léegi lan moo tax peut-être tuubul bu yàgg tuubul bu yàgg avant muy takk muy takk muy takk xale bi coïncidence bi am quoi yow loolu. ça xam naa xale bi moo xale bi bu toll na xale bi toll na ko foo xam ne. Uh-huh. nga ne seen diine amuñu droit takk ñaar doon. te xale bu ko rëcc. tu mm-hmm. dëgg en plus mu bëgg lii mu nekk mu bëgg ko tamit gëm ko bu dee gëm na ko wala bu dee bëgg na ko. du dëgg mm-hmm. parce que nit lu mu def rek xam na ko mm-hmm. jox na seen diine cër mm-hmm. ba amul droit takk ñaari jabar bu dee chrétien la kon cër mënut a weesu loolu bëggul xale bi rëccu ko te dafa bëgg xale bi te am na xale fu xale bi toll te giri boo boo gisee Mouhamed Sagna mi dafa bëgg sourire bii mu suuri bëgg na xale bi lool mu ne du ma am choix te bëgg na li muy def mu tuub takk xale bi li mu amul benn ngaañ. amul ngaañ ah. déedéet. nit ki la mu bëgg bëgg ko pet xanaa xamoo jigéen a mën a def lu ne ci àddina tey jii nii coow yi nga doon ay xeex ay giri may saa ña jàpp du ko defati de ay xeex du xeex. waaye du du ko takk xale bu rafet. xale bu mignon tey non non non non moo tax politique politique ay nañ bëri lañ def taxaw ko jabar dootu wax moom xale bi da ko yóbbu liñ demee moom Gabon. Gabon Gabon la ko yóbbu. Gabon la yóbbu Gabon la yóbbu Mohamed Sagna Gabon la ko yóbbu ñu nekk ci li demee ba élection yi passé ma <laughs> ko yóbbu Gabon wala xëy yow yow élection lu am na ci. kon moom xolam am na ku muy bëgg noonu noonu ba mu jaral ko mu bàyyi réew mi di dem ay. mën réew mi la war nañu koy xeex nga foog yow. xaw ma jigéen moo tax kay xeex réew mi koo ko jox boo jox. ça dépend amul lenn sa yaay jigéen la. sa jabar jigéen la. sa xarit jigéen la sa rakk jigéen jigéen moo tax ñëpp di xeex ci àddina comme teraanga jigéen moo tax nga koy am mm. wala xamoo jigéen yow jigéen amul lu ne ci mm. jigéen mm. mooy yow te xaaral ba affaire bi kii dina ko ee eh, dama ànd ak Macky Sall la eh. xale bii ma gis te Mohamed bëgg na ko bëgg ko xaw ne bu dee ko àndal Macky Sall day na Macky Sall de lu lee jigéen amul lu ne ci àddina jigéen gisoo Macky fi ko ma dafay caa fa lu leer ah dama leex lu leer yow dama leex lu leer ñëwal yaay wax de Macky foo ko mbaree fay say jàpp xam nga ko est-ce yow xaw billaay xaw ma barki Seydou Daaw ngi benn problème Macky bu suurulee suurit bu bay ñëw ba fii ba ci ba ba ñu fee non ma ne wax na ko wax ju neex li tax barki Seydina Muhammad bu ko mbaree waxoon bébé s'il te plaît dégagé na tey tey du fanaan ci réew mi tey ah police wax ñu am président tey bu ko soo uh-huh. am président bu mat président Mm. am président bu gore. Mm, loolu moom sa xalaatu bopp la. non dama xalaatu Sénégal yëpp la. non non waxal sa bopp rek képp ku nekk jeunesse. waxalal nekk xale bu ndaw. xam nga li Macky Sall liggéey ci réew mi. Pawlish waxalal sa bopp rek. li Macky Sall liggéey ci réew mi amul benn président bu ñëwaat ci àddina di ko liggéey ci addina du am ci àddina loolu gëwuma ko ci àddina man. Mhm. foog nga teg loolu. parce que fi ma ko teg xoolal xoolal li fi li mu fi def université li mu fi def. waaw Macky moo tax ñu am terre. Berthe. coupe ah. coupe d'Afrique mosuñu ko am ci àddina Senghor jaar na fi Sindiély Wade jaar na fi. <laughs> Sindiély Wade Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi. Mhm. Abdoulaye Wade jaar na fi. Macky li fi créé ci ay employé kenn xam ne mu toll ci àddina. employé employé mën ta weesu nga tabax nga tabax ay école loolu employé mën ta weesu loolu. ay ah, tabax ay université employé mën ay daara eh, eh, eh, loolu mën ta weesu loolu. Mhm. tabax stade Berthe. kon nit ñi nañ xam ne bu am ñi ngi ñàkk koo xam ne duñu ko amante ci àddina ñi ngi ñàkk président boo xam ne duñu ko amante ci àddina ñun nañ xam lu ñu am te bala nga koo xam ne ñàkk nañ makki billaahi wallaahi ñun dinañ toog dóor suñu loxo ci suuf ku ne di bërigo di jooy pétrole baa ngi ñëw duñu gis pétrole duñu gis soow duñu gis naanaa parce que Macky bu demee léppay tëju te billaahi wallaahi président bi tax ñëpp jox nu cër Macky Sall la nanu respecté Macky Sall nañ ko xam ni dootuñu amati président bu mel ne Macky billaahi wallaahi bu amee yërmande ci Macky Macky baax Macky dal te li ñu koy wax yëpp mi ngi koy dégg mi ngi ñi ngi koy saaga mi ngi xam ne ñu ngi koy saaga Macky ñu ngi koy wax lu bon mu xam ne ñu ngi koy wax lu bon te ñu koy xam yëpp ñee ko tey duñ fanaan seen kër waaye yërmande Macky Sall ëpp na ëpp na président nañ xam ne ñi ti sóoli donc dara sojoo dara fi ñëw yoroo musuwaar yoroo dara lu ñuy wax dëgg la dara dara seede wu ma dara li ngay wax daal yow la engagé Sall parce que Seydina Mouhamad billaahi wa dooj te buñ ko ñàkkee dëgg Macky bu demee lañ xam ne dootuñu amati président bu mel ni Macky Sall mm-hmm. bu demee ngeen xam ne ñàkk nañ ko xam duñ ko amati ci àddina mi ngi mel ne nit waajuram waaw ah, mais na dem rek parce que ku matal war ngaa mën a dem déedéet boo matalee te sa liggéey pareegul waroo mën a dem Macky billaahi wallaahi Macky li bari na Macky li mu na Sénégal yi nag ñoo ñoo neexu la nekkal yàq nañ seen xel ba pare yàq nañ seen xel waaw ah, ba xel ba pare ci Macky Sall. te defu leen waxu leen Macky tontuwu leen te mu nekkee ni nga xam ne xolam neexul Macky gi dem dem mais dox yi la rek. bu dee toog muy dox loolu du rek ma carte électorale. parce que yow boo génnee gis Sénégalais yi gis Macky pour cent de la jeunesse sénégalaise. xale day liggéey amuñu liggéey amuñu xëy eh, amuñu bi. li ñu nekkee Europe non li nekkee Europe ma ñëw non danga may déglu danga may déglu ma ñëw bala ngaa wax oro lu ma nekkee jaay café fii la oro mënu ma jaay café fii xam nga lamiñ mu non liggéey oro ñu ngi fa nekkee jaay café oro oro ñu ngi fa nekkee nekk ci foos oro ñu ngi fa nekkee uude oro ñu fa nekkee loolu moo tax xale am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi sol ñu ngi def lépp bu nekk oro bi jaay café la ñuy nekk wala jaay meew wala dugg ci baar yi di raxas mais fii nekk Sénégal bu nga tàmbalee liggéey Macky nag du jàpp kenn loxo di la liggéeyal liggéey nit mooy waral nit boppam liggéey du dëgg Macky ma waaye ma waaye mais mais mais mais sax yi la yabaate yabaate moo demee. non ñi wax yaay déglu parce nga invité. non da ngay déglu da ngay déglu da ngay déglu yaay déglu yaay mën ma tegaat sa émission man yi nga ku liggéey ci àddina nañu respecté internet respecté ok d' accord respect il reste propre li ma koy liggéey amul benn président bu ñëw ci dëkk di ko liggéey xanaa kenn muy Abdoulaye Sylla borom C50 moom laa gëm ne moom laa gëm ne bu liggéey ci dëkk bi su ma koy génnee moom mooy noonu nekk président parce que am naa capacité bi am na yërmande bi fii nga fi dégg ay wax Abdoulaye Sylla nga fexe ba dem bureau Abdoulaye Sylla mu jox la xaalis sa bu dee Moussa Gueye Pawlish Pawlish Pawlish Pawlish may wàcc yàlla bu ma gisante ak rasulullahi yawmal qiyaam musuma gis Macky Sall mais gis nga jaara bu dee musuma gis Macky Sall gis nga jaara jaara gisuma seetaan de sa nawle la de gisuma kenn non dama wax man dama Abdoulaye Sylla ci a wax Abdoulaye la moom rek laa gis bu Macky Sall wàccee mu nekk ci réew mi barke alquranu karim nii da wax li deex a yàlla mais Macky li mu liggéey kenn liggéey ko ci àddina ñi ngi ñàkk Macky Sall ñi jooy ñi ngi ñàkk Macky Sall ñi ngi xiif ñi ngi ñàkk Macky Sall ñi ngi souffrir bi mu fi ba ñi ngi ñàkk Macky Sall ñi ngi am ay choc ñi ngi ñàkk Macky Sall dëkk baa gi dem nag xëy jeunesse mooy avenir nit doo tëdd yeewu ba nga am xëy nit da wut ay jakarta di ko dawal pour am lu yóbbu jakarta fa la jëlee jakarta mais lijjanti ko loo am ko nit boo liggéey am lii liggéey la mu tawee su loolu ba wax xale xam nga la yow jakarta ni la dawalal ko ak ci di ci sax man mii yow toog muy dox ngay def parce que yow xale li xale yi li ma def da nga ko xeeb yow. lan wax da nga ko xeeb. naa ko trop. ñu may saag di ma wax lu ne da nga ko xeeb yow. waaw lan tax ñu lay wax a gën a métti ci àddina. lan moo ngi noonu wax a gën a métti loo gis liggéey la Macky Sall daal li muy liggéey nit du ko gaaw liggéey ci àddina benn barke Seydouna moo xam na nit ñi xam ne ñi ngi président boo xam ne duñ ko amati ñi ngi ñu ko amati ci àddina nañ xam ne la Macky Sall jàmbaar la d'accord liñ ci liñ ci foofu noonu parce que bëgguñu si yàgg mooy que ne yàlla nañu am président boo xamante ne bu ñëwee dina def mieux que Macky Sall parce que la ñu jàll ci leneen Abdoulaye Silla xam Abdoulaye Silla woo leen kenn ñu jàll ci leneen kooku man mooy sama président ñu jàll Macky wàcce moom laa bëgg waaw loolu yaa ñoom la li muy liggéey nit liggéey ko ci àddina li muy liggéey nit di ko liggéey ci àddina bu bokkul alalu réew mi bokkul dalay réew mi pour jàppale réew mi ko tax a jóg yéen bàyyi leen soxor Abdoulaye Sylla di ko liggéey waaye bàyyi bàyyi lu yàlla gi Abdoulaye Sylla fi waa ne tukki man moom lay àndal moom lay xaar waaw waaw wasalaam d'accord man nga koo xaar kon ba deux mille xaw ma deux mille vingt vingt neuf yàlla baax euh, leneen li si topp mooy euh, ci euh, li nga xamante ni ah, mooy bruit bi fi amoon fan yee ñu naan ay Wally Seck day bàyyi way du nga gis ñoo xamante ni vraiment xaw ma bad buzz laa ko mën a tuddee xaw ma dañ ciy profité di ci wax ay wax yoo xamante ne man je me demande est-ce que ñii euh, xam nañ lan mooy perte waajur wu naan ay dañuy def marché dañuy def yabaate mën tawee si loolu hmm. Hmm. Hmm. jaaga jur waar kese damay dégg waar kese Mm-hmm. papa coon jul mm-hmm. waari kese mm-hmm. moom mi daa am ay doom xale yu ndaw yi ñoom papi naawel moo ñàkk seen yaay Wally ñàkk yaayam Mouhamed ñàkk yaayam Aline ñàkk yaayam Bintu ñàkk yaayam Aïssa ñàkk yaayam Mouhamed ñàkk yaayam ñàkk yaayam jaaga jur Wally kese li ñuy wax li ñuy def pour mu neex Wally mun naa neex waali te naqari Mouhamed mun naa naqari Mouhamed neex waali mun na neex waali naqari Mouhamed nga xam ne mhm. jaaga jur waali kese koo xam ne amagoo amagoo quarante cinq jours daloo xamoo daloo xamoo lu ci ñàkk waajur ah mhm. Aji Thiam da ngay fay sa son bi ñuy wax parce que dañuy waay mhm. génn kër yaa comprendre ñu xa xamuñu li ci ñàkk waajur te waale fi ko waajuram teg ak fi mu teg waajuram nañ ko bàyyi mu di géré ko pare lii ñuy def nii waali wax lewu leen ko waaye santu leen ko waaye def lewu leen ko waaye nekku ci ñàkk fay yi mu nekk ñàkk waajur mën tawee say say yaay gaañu matagul juróom euh, euh, quarante jours yi matagul nga taxaw naan dañuy def ay conférence de presse ak dañuy def marche ak dañuy def dialogue ki nañ fexe ñoom si seen yaay gaañu. ah déet déedéet bu non non non non non non damay wax parce que tey bu sax yaay gaañoon tey yu bari doo doo wax dara def nañu warmaal yaay nañ nañ warmaal yaayu jàmbur yi. Hmm. nañ jox ci yaayu jàmbur nit ki yaayam amagul amagul ju amagul amagul sax fanweeri fan ci bàmmeel amagul fanweeri fan ci bàmmeel ngeen taxaw di woote ay marche ci yaayu jàmbur kenn marché wu leen kenn waxulu leen ci yaayu jàmbur ngeen naan dafa war a wayak ci koo xam ne di gérer ko yaayam ni yaayam waaye ni métti yaayam waaye ni bëggee yaayam ni fi ko jaaga teg ni mu fonke waaye tamit waaye ja ju am na ay rakk Mohamed rakkam la du ko neex Ali rakkam la du ko neex njabootu yaayam du ko neex bëgg soo biis mën taweecu nga taxaw ku ne di génn naan ñoom war na ñoo def ay marche ak ñu dee jalago ci yaayu jàmbur du seen yaay ci yaayu jàmbur loolu jalagoo ci yaayu jàmbur jiw leen fexe jalago maam seen yaay wala seen papa wala seen i ñu jéem a xool li def ñàkk waajur du caaxaan. Mm-hmm. du caaxaan de. waaye talla leen lul lii. Mm-hmm. nan ko bàyyi mu digérer yaayam. mais est du moom comme que moo leen boolee njaboote du leen a de ko bàyyi mu digérer yaayam. Mm-hmm. ni da bàyyi mu digérer yaayam. parce que du leen alerter. non nit nit par exemple li ngeen di def sant ma ñoom bu ñàkkoon waajur dinañ xam damaa juum sànq ma waxoon nan jéem a fexe seen jaay mm. ak damaa damaa juum ci wax jooju mm. Mm. damaa bëggoon wax nan dina bu ñàkkoon waajur dinañ xam mm-hmm. excuse est-ce que na dëgg xam ne yaay du caaxaan dëgg la nañu xam ne yaay kenn du ko nattanloo mhm. ku la ëmb juróom-ñeenti weer benn bés na koo rey mhm. mu génn àddina mhm. ki nekkoon ki nekkoon sa bunt nekk sa lépp kenn naan nañu marche nañu def kii affaire yu ñàkk fayda yoo xam ne nañu def ko dialogue ci yaay jàmbur doon dialogue seen yaay yi wala seen papa di bàyyi dialogue yaay jàmbur di bàyyi marche yaay jàmbur ci yaay jàmbur ay doom dialoguñu ay yaay ay doom marche wuñu ay doom waxuñu ñeen génn pour pour mu bëgg a waay coox loo di jër woo yaayam waaye ni met ci yaayam waaye ni mu yaayam waaye ni mu yërëmee yaayam ni ko jaaga fonkee nga xam ne bu heure bu yeewoo day xool heure bu yeewoo day xool numéro woo yaayam ngay woo sa yaay mënatoo a métti ci àddina te nga ko a métti jot lu ko gën a métti ci àddina sa yaay ci mm. ñëw ay xale ndaw xale ñàkk fayda xale pett bëgg seen àddina neex rek bëgg seen nit ñi bëgg leen wala bëgg nit ñi leen wala ñu bëgg affaire soo bi di marché yaay jàmbur naan dañuy def jànku yaay jàmbur ci loo xam ne yaayam gaañu na mënagul digérer ngeen bëgg ko wayloo far force moom it na génn moom na génn moom it moom moom mooy ndey mbi gi na génn ne sama yaay waruñu koo caaxaanee waruñu koo caaxaan seen way waye mbii si la amee lépp caa bi si ko nit ñi bëggee bàyyul way bàyyul waalu way mais na génn yamale képp kuy wax man naa ci bokk ñeneen ñeneen képp kuy wax na nga yamale bàyyi leen parce yaay dafa sali yaay dafa secret nañ bàyyi lii ñuy def yu ñàkk fayda day neexu ko barki salaatul fatiha neexu ko da cee mënul dara. waaye loo ci xam loo ci xam yow it. non da non. am na ñuy ñuy tuddee mbir mi. ban bës waaw galo sa yaay bu gaañoo tey. déet ah, ah, amagul exemple non non non bu ma jël exemple. waaw yaayoo bu gaañoo. voilà bu ma exemple de. yaa bu gaañoo tey ah. Hmm. tey amagul juróom amagul fukki fan ah, amagul 45 euh, kii nu ñu koy waxee sax. 40 jours. 40 jours 40 jours ah ko tey ngay génnaat ngay dialogue ci koo xam ne ni mu mel ci yow. nga xam ne deuil national la moo waroon am parce que jaaga la mhm. xanaa yaay yëpp bu gaañoo dafa war a deuil national sa yaay bu gaañoo jàpp ne àdduna bépp war a ñëpp war a gaañ parce yaay nga ñàkk mhm. muy jaaga di sama yaay di yaayu keneen képp sa yaay gaañoo war taxaw ne yaay kii mais am na ñoo xam ne ñu bari seen yaay gaañu nañ te li ñu nekk li ñu sonnee si yaay jàmbur taluñu ko sax dañuy romb seen yaay nii di dem ñaan yaay jàmbur wala romb seen papa di dem ñaan di papa jàmbur seytaan na mënut a weesu loolu nañu bàyyi waaye di gérer yaayam parce que yaay waale boo ko xool nga xeetam la xam nga nit xam nga nit di nga am sa doom mu nekk sa xarit jaaga xaritu waale la mhm. neexul ci famille bi ñu liy dem neexul ki neexul famille marraine neexul famille papa yi waali neexul famille papa jaaga parce que ñoom danoo ñàkk koo xam ne seen reen lan ñàkk muy famille jaaga famille papa coon nañuy régler téye def ko kaf naan dañuy def dañuy def dialogue ak ñu naan fii ba foog ci yaayu jàmbur yoo xam dafa gaañu te seen yaay gi dund wala seen yaay gaañu na bu yàgg dolee jéem a seen yaay wala seen papa ngeen bàyyi wala ngeen jéem marche seen yaay wala seen papa sama wax du neex man sama wax du neex damay wax logique dëgg mm-hmm. lay def waali xalaatu bàyyi waay waali mënta liggéey maçon mënta liggéey tapp si mënta liggéey uude mënta liggéey leen nañ bàyyi waali xelam tranquille koo xam ne xelam génnekul ci yaayam sax cool yu bari ñi naan dialogue ñi naan bàyyi na way nañ bàyyi yëfi ñàkk fayda yi ñuy def nañ bàyyi yëfi ñàkk fayda yi ñuy def nañ ko bàyyi fi ñàkk te nag ku ma ci gis nga wax ci loo xam neex ma dinaa la noq noq leen nit ba sa noq ci àdduna billaahi wallaahi dinaa la noq noq leen nit ba sa noq ci àdduna yow dafa mel ni yow bu caméra yi taxee rek ngay monter fit mm-hmm. mais ñoom xam nga ñu ko def muy délégué ak euh, Omaro mais est-ce que dem nga ci kenn wala nga woo ko wala nga. artu ko ci li nga xam ah, man ak ñoom ah, moo tax. waaw kaay say nawle lañ de. non ah, a bokk faramaare. non non kaay man nag faramaare laa bokk. wala ngaa génn non faramaare laa bokk. mais dama ci am personnalité. xam nga ni bokk ci dara amoo ci baaxul man dama ci am fa lañ ma fekk te fa lañ may bàyyi. mais ñoom tamit dañoo am personnalité de. galo mm. personnalité du cay wax personnalité ci jëf la. ok nit ñi xool xam nit ki dafa am personnalité galo sama personnalité dafa bari loolu dafa poussé turu Gallo man sama personnalité damaa dem ba ndaw sama bopp Gallo man ñaanu ma dew ma laabaan dew ma tuur nekkuma ci lu ñàkk fayda jëluma kenn di ko si dem naan yaay diw yore diw ak diw du def loolu parce que man su ñu mel la barke si Gallo amul benn kilifa gu tax ne Pawlish mos a ñaan juróomi dërëm yaa yëkkati sa alal ne ma am Pawlish dara man noonu laa mel moo tax li nit ñi am amu ko nit ñi nañ xam ne yaay jàmm du caaxaan nañu jéem a dimbali waar yi di waxtaan ak moom waaye ku ne di génn dañuy def dialogue ak ñi naan def marche ci yaay jàmbur na jéem marche seen yaay wala seen papa dee ku ne na fi say xati bawte tey boo dee malaaka bi xar suuf ci sàng la suuf jibril ñëw ak mustaxim ne la maa heusa looy wax yow koo jàngal loolu yow non damay wax parce que galo nit nañ xam ne dee am na nay xam ne dee du caaxaan de mhm. baax na wasalaam ok léegi Wally d'abord lan nga koy conseil mu génn wax nit ñi nañ téye seen làmmiñ yamale leen ku ci ku ci yamale comme nga may seen numéro est-ce que jar na muy génn ah kay na génn ah. woo leen parce ñoom déedéet mi daal maandu leen ci sama vie loolu mën ci wax leen ci man lii waaye ba ay waxi ay mars ak sama yaay dafa génn àddina réglé leen seeni i parole yaay du caaxaan te Wally di métti yaayam la jaa nga xaritam la de koo xam ne du ko gisati ba at day tukki du dëggateeg moom ci téléphone ba at day tukki gént la koy def wala janeer photom lay gis wala ay vidéo hmm. janeer la koy gis walla gént wala janeer wala wala ay ay vidéo jeex na du ko gisati dootu ko joxo ci loxo ko nuyooti bu jaaxle ba jaaxle dem ci armeeru yaayam suq mi ngi ñaanal yaayam hmm. yaayam a koy dégg xaw mi ngi koy bañ a dégg mais pour gisati yaayam du amati ci àdduna tukki bisu penc kenn xamul luy xew ci àddina hmm. ku ci am sa yaay profité li moo génn àddina ku ci am ci ay jaamu ko bala moo génn àddina ku ci am ci ay tatwi ko bala moo génn àddina koo xam ne doo gisee ñu sa yaay sa papa déedéet na jaar côté bee nga jaar côté bee parce que bi mm-hmm. su pecc sa yaay mën na nekk àjjana nga nekk safara jëf yi bokkul nañu jéem a tarbiyu seen yaay Sénégal Dakar gii wala àddina bii nga ter mm-hmm. ngeen tarbiyu ko ba seen ba am seen waajur mm-hmm. du dëgg parce yaay du caaxaan papa du caaxaan man li ma jotoon dal sama papa maa ngi koy tarbiyu maa ngi koy jaamu parce que kun li ma jotoon dal hmm. maa koy regretté parce que waajur la papa yaay yaay la maa ngi koy regretté parce que ba ma demee ba xam ci kilifa du jaaxaan ba tey maa koy tarbiyu hmm. ba am ci lii yàlla gi may suturaal nan di ma tarbiyu seen yaay sa yaay mooy génn àddina doo ko jot ñu ne boor vocal nga xam ne sa yaay ñi ngi koy jege mënoo ci dara jooy nga mën ci moom dara pour ko suulee xamuloo am ci moom ñaanal ko mënoo am ci moom dara ni ñaa ngi kaf booy nekkee ci dëj sax ñu naan may ma ma caat ñu naan may ma may ma kaani may ma kii nga xam fàttale seen yaay yooyu mi am na xam doo fàtte sa yaay ba day tukki mm. nañ nañ xam ne dee am na ku ne si sa yaay xatin mawti nga xam ne dee du caaxaan nañ sóoraale suñu yaay yi nañ bàyyi yaay jàmbur ji tëdd ci jàmm nañ bàyyi waale xerem dal waaye waale amu yaay am amu 40 jours sax ñu naan day def dialogue ki yàqamti indi affaire ñàkk fay nañ ko bàyyi mu digéré yaayam dem maaka saara bi ci laa ñëw toog xool xalaat bàyyi ko xelam parce que doful et tous ces fourbes ils en sont chez moi. maanaam. moo gën a intérêt ku ko jàppee dof mooy dof moo gën a intérêt saa ci àddina. waaw. billaahi wallaahi ñu def ñaan. amiin.